jàkkaarloo ak song yi nga xam ne maanaam moom la ñu koy song rawatina ñi nga xam ne ay jamono moom la lëngaloona di waa benn bokk yaakaar yaaya ña di professeur ci lu jëm ci wàllum droit nee na dàq gi nga xam ne na nañu ko Aminata Touré ca assemblée nationale loolee jaaduwul maanaam tegiwul ci yoon Babacar Dione di journaliste nee na Aminata Touré li nga xam ne moo ko nar a sonal maanaam mooy ñàkk ak base politique yéen gi ba tey di réew mi ko dëjee ci xëlim ak Assane na Aminata Touré que ni ko dàqee dañoo jalgati loi ndax loi bi li mu wax mooy boo tekkee sa ndombal tànk ci sa parti politique sax li si am Sall mooy Aminata Touré du parti politique moo ko yóbbu assemblée nationale waaye ab coalition moo ko fa yóbbu waaye nag moom Assane Samb nee na ñi nga xam ne ñooy waa PDS Aminata Touré ak ni mu doxalee woon ci mbiri Karim Wade ci lu jëm ci teranga jullewul ci traque des bi mal ak loolee la ko waa PDS jàppal ba léegi maanaam mënuñu ko ko baal yéen a kaay gii la ko di cee xëy di ñu xibaar naan ñu wàllu bennoo bis bu ngeen xëyee ñu ne taxawal nañ ko ci réew mi bu mu leen ndax mbooleem li nga xam ne moom la bennoo bokk yaakaar bëgg ci assemblée nationale ñi nga xam ne ñuy waa Sénégal ñoo ngi leen koy defal ni mu leen neexee ndax bi ñuy voté budget bi ci gouvernement bi ak ci institution yi wàllu Sénégal dafa voté budget yëpp bi ñu demee tamit ci li nga xam ne moo jëm ci motion de censure bi nga xam ne coalition Yewwi Askan Wi dugaloon nañu ko ngir nag daaneel gouvernement bi ñi nga xam ne ñooy waa wàllu ñoom ànduñu woon ci motion de censure bi leneen li ci topp bi ñuy dàq Aminata Touré waa coalition wàllu Sénégal dañu se jàppale Benno Bokk Yaakaar lan la coalition wàllu Sénégal di daaw loolee ab laaj la journal bi nee na jëmbul ne Karim Wade mi nga xam ne dégg nañu ne ne dañu koy ko waral yéene kaay gi de la Abdou Mbacke mi nga xam ne mooy sëriñu bu Ousmane Sonko moom nag ma ngi weddi ndax dañoo waxoon ne sëriñ Muntaxa dafa wax sëriñ Abdou na ko waxal Sonko mu bàyyi tooñ ak ñi mu àndala loolee sëriñ Abdou Mbacke nee na loolee dara du ci dëgg ndemoon na nag seeti sëriñ Muntaxa waxtaan nañu ñoom ñaar ci loo xam ne ñoom ñaar rek la waxtaanu privé la yéen a kaay gi de nee na alliance APR PDS maanaam ma ngi ci yoon yi bis bu ngeen ko fi déggee bu mu ngi commencé ci Macky Sall ba mu demee ca Qatar ak gise ba nga xam ne gise na ko fa ak Karim Wade boobee la ñuy waxtaanee lépp yéen kaay gi di bés bi ñu xëy fekk fa Barham Seck Barham Seck mi nga xam ne mooy njiitul fédération Jamihaatu diin daat nay wax ne Cheikh Mahi Niass mi nga xam ne seete woon na Macky Sall waxtaane wuñ fa lu jëm ci wàllum politique waxtaane wuñ fa tamit lu soxal mbiri Ousmane Sonko yéen kaay gi di l'Indépendant nee na Amadou Sall mi nga xam ne mooy doomu Macky Sall tudd nañu ko ci ci ab dossier boo xam ne bu doy la dossier boo xam ne ay milliards yi milliards la gi di Vox Populi nee na Ousmane Sonko ni ki dem mu yëkkate na ay kàddu ci VOA daat nay wax ne dana présenté wu ca procès ba ca àtte ba moom ak Adji Sarr waaw wala déet dafa teel mu daal di ci yëkkate ay kàddu waaye moom usman son Sonko nee na li am ba desal li mu man lépp joxe na ko ngir nag andi ay firnde ne lii ab complot la ne li ñu koy waxal dara du ci dëgg waaye nag dafa dem ba maanaam sonn na ci mbir mi te moom xam na ne lii ab dossier politique la yéen gi de las nga xam ne ñooy waa APR ñoom Mor Ngom ñoom nag génn nañu communiqué nee nañu état bi na rester fort ak état bi na taxawal boppam na dëgër maanaam bu muy yox bu ñu bàyyi kenn di indi ak salfa ci réew mi yéene gi délibération ñu xëy fekk fa Bakary Diatta maire bu Bignona bokk Pastef daan nay wax ne Ousmane Sonko bu ñu ko bëggee gàllankoor ci élection présidentielle ci seeni néew la jaara ñi nga xam ne tamit ñooy waa Pastef dëkk ca diwaanu Pikine ñoom nee nañu nañu organiser wo résistance ndax am na loo xam ne mënuñu ko nangul Macky Sall journal di Vox Populi Ousmane adversaire am te lii ab complot la ay feni nen la waaye nag am na loo xam ne mënatuñu ko nangoo yéen kay gii di 24 heures xëy duñu xibaar naan ñu Ousmane Sonko ka ni nga xam ne moom la yéegee ci lu jëm ci wàllum politique Macky Sall ak militant ma dañoo def ay erreur yu bare bare te nag Ousmane Sonko mii nga xam ne dañu ko bëgg yàq ci lu jëm ci dossier viol bi loole nag bokk na ci li tax Ousmane Sonko gën di yéeg jamono ci ndax amul kenn koo xam ne gëm nga wàllum viol bii nga xam ne moom la ñu tuumaal Ousmane Sonko ba nga xam ne sax ñoo ko koy tuumaal lay journal bi di réew mi nee na ki nga xam ne jamono moo fi nekkoon procureur Sénégal di Serigne Bassirou Gueye tey jii dina tontu Ousmane Sonko bu 16h jotee ndax nee nañu Ousmane Sonko dafa tuumal Bassirou Gueye ci lu jëm ci PV bu gendarmerie ne daf ko falsifié am na juróomi organisation société civile bu Sénégal ñoo xam ne nee nañu mbir mi bu ñu ko réglé wul maanaam conflit bi Sénégal mën naa dugg ci giraawal yi yéenekaay gi di bés bi nee na Aminata Touré moom tim tey jii lay janoo ak taskatu xabaar yi ngir nag tontu waa Benno Yaakaar gi nga xam ne ñoo ko tëbalee w Assemblée nationale yéenekaay gi di réew mi ko di jeex ki fi nekkoon ay jamono njiitu réew Mauritanie Mauritanie di Mohamed Ould Abdou Aziz moom ab atem ubbi na niki démbo détournement luubal alalu askan wi la koy toppee moom ak personnalité yu bare bari ca diwaanu Mauritanie journal bi nee am na ñaar ñoo xam ne ay premier ministre lañu woon bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy àttee ak ay homme d'affaires te nag soo mooy tuulee kii nga xam ne mooy Mohamed Ould Abdel Aziz mi nga xam ne jamono moo fi nekkoon njiitu réew Mauritanie maanaam ñaar fukki ati kaso mën na koo tëdd yéen kaay gi nag nee nañu soo moytuwulee maanaam Sénégal situation bu doy waar ci lu jëm ci wàllum dund gi dina am ci réew ndax nee nañu lu jege ñaari million ci doomu réewum Sénégal yoo xam ne dinañu nekk ci jafe-jafe ginnaaw loole tamit dina am 86 mil ay sénégalais yoo xam ne ci urgence la ñu nekk maanaam wàllum ñàkk lu ñu lekk da leen di sonal lool ci weeru juin juillet jàpp août bi nga xam ne moom la ñu dëgmale en tout cas lii xëy neexu la ci lu jëm ci wàllum dund gi dafay gën di gàllankooro ñi nga xam ne ñuy waa conseil national de sécurité ñoo ko xamle ba tey ci journal bi di Sud na sommet de Dakar bi souveraineté alimentaire la ñu fay waxtaane Macky mi jiite Union africaine daan wax ne Afrique jamono ji lu urgence la lu jàmp la ngir ñu moom seen bopp ci li nga xam ne moom la dundee yéen a kaay gi de Le Quotidien moom Macky Sall wax ne Sénégal sori lool lu jëm ci wàllum autosuffisance en riz yéen a kaay gi di waa Grand Place daan wax ne Sayer Niang mi nga xam ne moo jiite ARMP kan moo koy protéger Ibrahima Ndiaye mi jiite Ageroute moom a